c'est vrai li luma ma bett la mais fi la wax la veille. waaw Mais sumay dem kamil la yobbu parce que waxtu deug la. Mhm. ak sama course. Yo ya ci boole course bobu sax. waaw mën naa ko si mais sama kaamil laa fas yéene woon yóbbaale. Mhm. pourquoi ma fas yobbu kamil? c'est parce que waxtu deug la. Deug la. sol perkaal bu weex. Mhm. parce que dama dé ba paré. Deug la ba pare bàyyi ci auto bi mer gàddu bi. ak mat ak valise ba. tout temps sachant que damay guen ñibbi. waaw mais nga waajal sa bop rek. mais damay wajal sa ben on va aller répondre. tout temps sachant que nak damay guen ñibbi. ba ma duggé dama jaawale buntu yi parce que DGE la duggé saa ma duggé feulé dama dugg DGE laajte ñu dama ma CO deuxième xam nga dañu taxaw. ah dañu taxaw. ma dugg CO deuxième ma dugg ki ma ñëk tassel mm. il m'a identifié c'est un lieutenant. Mm. mu ne ma grand dañ la convoqué si cybercriminel Fall daf ma ñëw ne ma Fall. dañ la convoqué si cybercriminel non yow fi du sa place yéen ay VIP ma ne ko man bay Fall la mm. mu ne ma da ngay génn beneen porte bi la. arrivé au niveau de la porte. policier ya fa ne gémi ya fa né monté. ñoo jaar sama tur. dañuy suivre sa fan sa lañ. ne ma grand ana carte d'identité ba carte d'identité baa ci oto ñu ne ma noo demal mais gannaaw xam nga ne yow tam sa carte d'identité ko war a andi pour identification. ma nga ca oto ba. kon da nga jàll xew. non non non non c'est-à-dire ah, ah. fi muy nekk non non no fi muy nekk. foofu la document yëpp di nekk. Mm-hmm. parce que je savais pas c'est la première fois xaw ma loolu. Mm-hmm. c'est la première fois ma ma ma am convocation c'est ma première fois. <laughs> donc yow xam nga. te malheureusement tu m'as pas préparé. min na commissariat kii. <laughs> malheureusement tu m'as pas préparé. dëgg kii min na lépp moom. mënoon nga ma woo laa bay. ne ma sooy dem defal lii defal lii defal lii defal lii. ne ma soo demee amal comportement bi mais malheureusement dag maa sël. waaw moo ko tey waaw waaw man nag maa ngi jàngaase yow ndax ma demee ma dem yéeg ba ci kaw cinquième la nag te amul ascenseur. dañ lay dañ lay maltraiter dañ lay martyriser avant nga yéeg avant nga agsi nga yéeg ba sonn escalier yéeg cinq étages ba gudd nga ñëw essoufflé mm-hmm. dugg bureau parce que xam naa fa ma dugg nuyu commissaire bi parce que daan naa fa dem mm-hmm. nuyu secrétaire bi ne leen dañ ma convoqué ñu mm-hmm. ne ma toogal ma toog maa yor sama kaamil ñu ne ma yow diw nga amel bon je le protège diw nga amel rendez-vous ah protège ko mu nek suma xarit ah bon ki ma amel rendez-vous dafa nek suma xarit mm -hmm. parce que demb ak barki demb on partage beaucoup de choses d'ailleurs la veille woo naa ko téléphone parce que gëj naa ko dégg ma wo ko téléphone ñu waxtaan tay xam won woon ne ngay xaw mo won ni mom la wara a mom mo la édu auditionné waaw d'ailleurs bañu aggé dossier bi daf ko dox keneen parce qu'il pouvait pas le faire Qui mm-hmm. ma convoqué ba mu ñëwee dugg ci biir salle bi li ma njëkk wax mooy kaamil bi du dugg ah <laughs> non kaamil bi top. ah Voilà quoi. ko waaye te nga bàyyi sama kaamil mu ne non kaamil bi top quoi donc ça veut dire que déglu nañ ko laa bay ñun lañu seetaan parce que xamuñu li ma yor lan la waaw non kaamil du top quoi ba mu bañ a coow dem ma teg suma kaamil mm. ne ko nag bon kaamil dëgg lay wax quoi mais bon puisque nee dama tok grand waaye tamit da nga yóbboon kaamil pour lan pour meuna deug deug deug dëgg dama koy dama dama ko don ubi tek ci sama loxo. dëgg la di wax ak mom te d'ailleurs ki ma don auditioner wax nako ko. Mm-hmm. ne ko li mo taxone ma bëgg sa andi sama kaamil. Mm-hmm. na tok quelques minutes ma waron xaar commissaire bi pour pour nuyoog moom. Mm-hmm. ñu woo ma ci ben bureau. ma dem ci deuxième bureau bi ñu ne ma da ngay démarrer audition bi commencé wala la dañu ñëwal toog fii kii mooy enquêteur bi nanga maa leen du ma wax. avocat ngay xaar j'attends mes avocats. oui ñëw. ñu ne ma am nga ci droit. Mm-hmm. wax dëgg si yàlla. waaw ñu ne ma am nga ci droit bañ ma nee am nga ci droit ma toog di xaar sama avocat tamit il prend son temps. ah maître rek. maître ma koy nuyoo passage. maître Amadou Sall maître Amadou Sall mu ñëw toog les léger quoi jean lacoste. léger training. yorul pib ba wala bàyyi yorul pib bi ñëw toog yoon nag daf ko may mu mu concerté woon man 30 minutes. Mm-hmm. boobu man xaw ma lañ may doyee xamuma ko. ba ba may toog ak. l'agent enquêteur xaw ma officiellement. Mm-hmm. lañ may doyee mais njort naa ko. Mm-hmm. d'ailleurs dafa fay xam nga wax naa ko démb sax liñ may doyee dee nañ ma ko nangam sangam expliqué quoi. Nous toog waaye nous tu ne sais pas de hmm. là tu ne te rappelles pas de ce que tu as dit Je ne mais t'inquiète. Hmm. mais t'inquiète ne t'inquiète pas. Nous tu es ici suite à une plainte de Abbas Fall rek ma pas. Ah, <laughs> non mais tu sais pourquoi. pas. Hmm. <laughs> Abass Fall mu mu naanaan ba ngay xaqataay. non nañ ma baal téléspectateur yi ya. rek ma xaqataay waaye suñu xool ma quoi. Eh, eh, ne ma qu'est-ce que ça passe ma ne ko non ça li may li may ree man maa ko xam quoi. parce que lii bettu ma. rappelez-vous officine yi bañ naan Adama Fall ñu koy wër. vous vous rappelez. waaw waxoon nañ ko officine waxoon nañ ko fi. ba nga yaa ngi rappelé. donc ku ñuy wër dañuy dañuy am numéro téléphone am bon. ñu toog avocat bi toog ñu wax ma information rek ma defarwaat. mais les choses sérieuses nak maintenant commence yow rek ma toog ñu jàkkaarloo mu posé ma question pour sama circuit nangam sangam mu tourner xol avocat bi Normal moon tontu mhm. mu ne ma répond ma tontu rek mu ne ma on naan dans le sujet ma def ni. waaw cum def sérieux mu ne ma Abass Fall néna na da nga ko diffamé da ko injure donc euh, fausse nouvelle nangam sangam tu es poursuivi pour diffamation injure publique et diffusion de fausses nouvelles. que donc pour diffamé à travers une vidéo nangam sangam est-ce que vous confirmez ces propos je ne les confirme pas parce que je n'ai jamais diffamé le sire à Fall je ne jamais insulté, insulté je n'ai jamais émis des propos diffamateur à son encontre. mu mm. ne ma c'est seulement ça votre réponse ma ne ko effectivement. dëgg teg vidéo bi. vidéo bi maa kii ñoo toog. Ah, <laughs> la fàttu ko baa ngi fenn. <laughs> mais <laughs> ah! ngi toog. Mm. parce que dafa né une vidéo devenue virale sur les sur les réseaux sociaux. Mm. teg vidéo bi te li ci neex moy beut dafa sob avant muy tek avant muy may wax li yépp mm. yër naa image vidéo bi. ci <laughs> yow nga sobee <laughs> di ma sobee gis naa image vidéo bi rek sama xel bi daw. tak tak tak tak tak. moo tegal ma vidéo bi. maître Sall gi toog. ñu teg vidéo bi mu wax ba mu jeex ci biir vidéo bi. duur yaa ngi fàttaliku. yaa ngi doon wax na leer de na leer xam nga mooy. waaw <laughs> ah, waaye gannaaw yaa ngi may <laughs> naan mooy ba muy expliquer la situation. Hmm. ba ne moo def xamuma deful xawma suñu yoon newu ci. li ñuy wut mooy. na leer mais ay yoo itam dëgg xoromal nga dëggal nga mais loolu nga ne na leer na leer yow yaa ko wax duuru dégg naa la dañu teg vidéo ba pare waa déglu rek kenn du la convoqué dañoo teg vidéo ba pare ma tourné xool maître rek maître na ma waaw xam nga moom tubaab la mu xool après ma commencé ree quoi parce ma defoon quoi ah, nañ ma baal euh, et c'est un jeune c'est un jeune de rien eh, du tout xale bu xamul dara xam nga xale bu xam la pose pose question mm. c'est? tout poser question et quoi. pourquoi tu as dit ça ça ça ça dans la vidéo que vous venez de publier. Mm. nulle part j'ai diffamé Abbas Fall. Mm. point. Tchoum. deuxième question. Mm-hmm. xam pose des question pour. pour pour mm-hmm. on pose une deuxième question. pourquoi en dafa am kumba am ndey wala kumba amul ndey parce que Lat Diop dañ ko porter plainte dañ ko mm. accuser dañ ko dafa am ku ko ku ko jiiñ ne daf ko corrompre ñu ar ñu tëj ko kii dañ ko jiiñ que dañ ko corrompre te tëjuñu ko pourquoi nga ne dafa am kumba am ndey wala kumba amul ndey waaw waaw pourquoi nga wax loolu quoi waaw waaw ma ne xam nga tax ma xoo mm. Lat Diop nit moo ko jiiñ mm-hmm. ne daf ko corrompre

mooy xam nga trois questions la quatre la woon dañoo déewante génne benn bi <laughs> net question bi. ñu laaj ma wax ma am na lu ma wax ba mu ne ba ñu bañ jàpp ne damay défier l' autorité quoi. Ah. kan la autorité bi. non l'autorité, autorité. Ah, les autorités waaw. et que ay musel mi. ma leen je ne vois pas pourquoi. Hmm. je dois défier l'autorité. moi je suis un républicain. dëgg la je crois au percept et au principe républicain. maintenant je ne suis pas Abbas Fall. Mhm. qui a défié qui a défié l'autre orbi et urbi l'autorité en haute et intelligible voix. D'accord. je suis fier de toi. sans pour autant être convoqué ici. D'accord. donc ma place n'est pas ici vous devez me laisser rentrer. Alors wax tey Fall. li nga mu ne ma léegi bàyyil pare na loolu nga bëgg a wax reliraat affaire bi. waaw d' accord nga ma ne ko d' accord naa. Mm. maa wax lii yëpp mu ne ma xaar ma. waaw foofu Aziz xaw a tiit tuuti. non. day yóbbu day yóbbu day yóbbu bi ci l' alpha. mooy mooy kilifa ba fa nekk. waaw kilifa ga. ma toog di xaar ñu ñëw génn il faisait quinze heures ñëw génn. Mm. ne ma signal. xam donc enquête bi jeex na. waaw ne ma signer ma signer procès verbal bi. ñu ngeñu bu mm. ngeen bu ngeen genn pour ñu ñibbi. wa genn agent bi ne ma soy dem na nga dem séti commissaire quoi. Mm. mandax maître dem dugg ci bureau secrétaire mais après maître ne ma dama sonu dama xif il faisait 15 heures. Mm. man ma ngi ñibi après on se capte donc enquête bi jeex na. ah wa 15 heures ah. 15 heures wa

Vous ubbiwaat beneen dossier. ah dossier encore. encore ban la. ma ñu suis y' a d'autres questions à à poser parce que l'enquête bi je expliquer je ne parle pas. C'est sa avocat Je sama avocat ne ma ma téléphone. Mm-hmm. parce que soo demee dañuy téléphone Je mm-hmm. ma jël téléphone bi ñu jox téléphone je ma ko ci jot message ma maître ne je suis retenu il faut que je revienne parce que dafa am question yu may nangam ne ngi ñew bul mm-hmm. maître tok tu benn instant ñew ba mu ñewé ñu ñew tok man mom sa ku baax la tam ñu koy nuyu. mu mu ñu mm-hmm. non ce jeune là dama ko quoi je je dama ko mais pourquoi ñu jël dama ko. dama dama ko parce que yalla ñu yalla baal mais. Euh, on les fait faire des choses tey dama dama leen koy wax ne leen man moi je vous comprends ba ñu ñëwee toog ba commencé deuxième kii bi deuxième interrogation bi rek ma xaxataay waaw sa xaxataay itam lan la non sama appel téléphonique bi Hmm. vidéo bi ak jeeg bi 17 minutes <laughs> appel beeg jeeg bi waaw wala appel final appel téléphonique bi ma def barki démb fii mooy kii bi mooy samedi bi

waaw pourquoi jëluñu euh, paagulugulu suñu appel téléphone yi mu lañ jël. Aïssatou nii nii nii laa doon reewee. ah di man mi sama man ma sama maa ngi retaan di waaye suñu appel téléphone yi ñoom ñoom lu seen yoon. lu ci wax ça n'a absolument rien à voir. ak l'objet de la convocation. nga défier l'autorité. mais. appel à l'insurrection <laughs> ah. ñu convoqué la nga naan ay samay dem damay génn ku ma laal <laughs> ah, ah, xaw ma lan ah, il va rester des traces <laughs> loolu loolu mën nañ la si inculpé Aziz foofu foofu nag <laughs> bi tamit da nga ëppal yéen ñaa man dañ leen waroon wax eh man ma question de man dama doon manifester sama sama sama sama solidarité hmm. buñu ta bi ñu ma woowoon ne ma hmm.

ils ont pris la première phrase ni ko la wolof. Hmm. ma da nga vidéo bi ne gi <laughs> président boobu. Hmm. baayam juddoogu. yaa ko wax wax. waxuma waxuma de. waxuma de. il <laughs> ma ree. ñu L'Olou non, lutax quoi. mais mais question xawul dire nous yalla nous les questions là ne sont pas. Ah, non gars nous la question un peu koy nga xam. wa rek. mais question oyof rek question ah question hmm. je peux répondre. Hmm. oui oui. si je respecte les lois de ce pays et les règlements. Hmm. est-ce que ngour dina ma

bi ñu toogee mu mu kii sigi ko ma ne ko moi je suis spécialiste man maa wax. Mm-hmm, mm-hmm. nga laaj ma. bu doon man ne fa laay nekk di dërëk di naan ay ah deuxième question. Mm. kon pareegul. <laughs> yu gën a terre à terre ngay dégg. deuxième question. ci toujours sama sama appel téléphonique bi. waaw 17 minutes. 17 <coughs> minutes yi. jël nañ première question. Mm. te li ma wax noonu première question bi. loolu sama kàddu la ma sa doon fii non. waaw je l'ai toujours dit. Mm-hmm. et dama koy maintenir tey. déggoo li ma la parce que du ma tooñ. moo tax may wax loolu duma def lu tax nguur di ma tëj moo tax may wax kàddu yooyu. waaw c'est-à-dire da ngay xam lu tax nit ki di wax est-ce que tu comprends. xam naa fi voilà deuxième question mu ne ma nee nga lu leer ngay wax te li ngay wax caaxaanoo ci kafantawuñu ci. Hmm. suñ ma jàppee seen pouvoir dina entaché wu suñ ma tëjee seen pouvoir <laughs> dina entaché wu. Mm-hmm. ma ne menace <laughs> la. rek mu ne ma est-ce que c'est une menace. <laughs> adi soof da nga ëppal. may ma tuuti rek. Mm. soxna si lu ma de. ma ne ko grand terminé woo phrase bi de. Ah parce que dans la même vidéo. Mm. j'ai dit que du ay menace. Aïssatou Diop Fall tontu ma ne ma. Ah! déedéet non loolu fii laa ko waxee sooy fan dugg bu wax. Ah, waaw laa kon sama tur mu ci PV bi. déglu rek déglu ko déetaan ma ne ko da ngaa film bi continuer dans la vidéo hmm. dama c'est pas des menaces. So continuer vidéo bi. waaw ah. continuer phrase bi bul def trois points de suspension da nga bëgg duggal duma ma dugg <laughs> continuer neel phrase bi j'ai dit que c'est c'est pas des menaces. Mm. ba tontu nañ ma ci bir nema yow Addis yow do menacer waaw loolu loolu mën ko wax. très bien parce que j'ai dit c'est pas des menaces. dëgg la donc bu nan damay menacer parce que j'ai dit que du ay menaces. mais menacer wo kenn sax. waaw mu ne ma troisième question. déglu question déglu question rek troisième question. Hmm. mu ne ma pour pourquoi nga wax nii suñ ma convoqué damay ñëw suba su ma xëyee déedéet daf ma ne lu tax nga wax ni dañ maa convoqué wooteew ma wallu woowu ma kenn na ñëpp toog waxuma jibi <laughs> waxu ma waali. Aliou boo paree nga résumé bu dee question yi lii rek la moom. damay def pat. vraiment boo paree nga résumé daaneel. yomb na ñibbisiwaat. ma ne ko c'est le comportement normal d'une personne boo xamante ni dañ koo convoqué xamul li mu war a wax xamul lu ñu koy doyee su nekkee da nga maa convoqué te xamoo loo may lu lu xaw xaw ma luñ loo may doyee dama war a noppi ñëw uyu si la. Mm-hmm. mu ne loolu mooy sa tontu ma ne ko waaw. mu ne ci biir vidéo bi yaa ngi fiy wax. jokkalante jokkalante cadeau. Je mais c'est ça que vous êtes en train de faire nous sommes en train de faire vous êtes en train de me poser une question je vous réponds soo ñëwee toog su ma demee jokkalante kàddu moo rek après ma jóg dem ñibbi loolu doo nga fa am mënul am leneen jokkalante kàddu do nga fa mëna moy question réponse jokkalante kàddu moy question réponse soo ci paree ma jóg dem ñibi mu ne ma pourquoi nga ne soo paree da ngay jóg dem ñibbi ma ko sa convocation bi sax amul droit nekk parce que defuma lu tax ñu may convoqué puisque defuma lu tax ñu may convoqué gisuma lu tax ñu may tëj te jàppal ni damay ñibbi. waaw wax yow tamit nag. lu tax bu duma ko ah. munoo mën a fetal rek. naa sa la ne waaw balaa nangam leem leemal tuuti. non foofu lu mu la bëgg laaj. layam layami moom lu mu lay buggul laaj noonu. waaw mooy xanaa yow da nga am yow ku la wóoral ni yow. doo fi toog jox la ay garantie. <laughs> la bëggoon wax waaw est-ce que je vais tomber dans son piège. bah non. non parce que lii am laa ko wax. Hmm. defuma waxuma tooñuma ku deful loolu yëpp lu mu war a def du ñibbi. dëgg la man ba may ñëw jàpp naa ni defuma moo tax ku wax ma ne la damay dem. damay ñibbisiwaat te suñ ma woowaatee suba damay dem damay ñibbiwaat. waaw léegi ñoom ñoom ñoom fu ñu jeexalee ak yow. foofu den dernière question bi ñu ne ma léegi toogal xaar ma toog xaar ñu dem delluwaat. autorité ba ca autorité ba ñu xool xool xool après ñëw ne ma signé la. ma signé ñu ne ñu ne ma léegi demal seeti soo leen dem mun ngeen dem ji si commissaire. dem gis commissaire ni waxtaan waxtaan après commissaire di dalal quoi mm. est ce que topoto nañ la ma ko non fi dama ñew jox ñuma ma may nañ ma ndox nak may jox ñuma ma ma añ dañ te xamna lutax lu sax c'est une stratégie pour ma sonn xif suma ma mën mun péter les plombs mm-hmm. ba ba wax lu ëpp mais heureusement je me suis préparé à toute éventualité mm-hmm. waaw légui nak lu may def mu ne ma mën nga jox ñibi ma kon commissaire xam nga ne wax naa kon Hein. donc c'est c'est ça qui c'est xew mm-hmm. et li ma ci metti euh, lañ doon def mm-hmm. instant envoyé le message bay wax sa mais attends bay dem pourquoi on revient sur des choses yo c'est des banalités chercher la petite bête c'est-à-dire bëgg chercher la petite bête ma ma garde à vue mais du quoi parce que dara enquête commissaire supérieur deful dara. ni ni ma arrêter, courage arrêtez ma. Mm-hmm. Si vous courage arrêtez ma man de def après donc donc c'est ça qui s'est passé. et ça fait ça fait très mal et nous ngi à la